maman Koura ñu waxtaan itam sa diggante uh, Astou mhm. <laughs> Diop Fall. Pape Alé dafa am ak man problème. problème bi mooy ay Diop Fall. dafa nekk nit koo xam ne alalu borom barke la. ay Diop ba wal fajari ubbee moom la ko Sidi Lamine ñëw ñas jox. Mhm. mu tas ko. wax fir wax moo fi génnee saaga moo fi génne xas mag moo fi génnee ñu interview mag wax ko lu kenn musta gis ay sati Fall ay sati Fall reewande googu Sidi Lamine Niass xëy dàq ko ca xat Aïssatou Diop Fall sonn ci biir dakaar gi bañ koy génnee luwaas ay sati Fall dem France Youssou Ndour fekk ko fa muy taxawaalu Youssou Ndour jël ko andi ko dugal ko ci télé bi sama mag ji kenn <laughs> yàlla na gudd fan dimbali ko ay Diop Fall buy wax ak président Macky Sall iñaan na iñaan goo xam ne day gàkk nagu bafalo bi laa ko wax di gàkk ay Diop Fall tilim na ay Diop Fall ñaaw na léegi ay veer la jël ma ne ko nagu bafalo yooyu nekk mantanaa ngay nuróol tekki woo dara ñàkk cër gi nga jox Macky Sall moom lañ lay delloo nii na wax ak ñoom ay may mën a ñu pare ñooñu ñoom tepp sa caam ñu pare ñooñu ay ñoom Eva Tra ña nga yiw Aïssatou Diop luñ ko teree wax ci réew mi Macky Sall wuyu la Macky Sall bandi la amul compétent maki Sall defu fi dara Maram Fay na ko ay waa këram téye moom la ñu war a téye nagu bafalo bi moom mi nga xam ne amul gétt ay siti Fall amul gétt dañ koy jëriñoo nee dafa ubbi noonu youtube du tele youtube laa koy wax tele ci poos maa ko njëkk am alalu borom barke la waxuma APR waxuma benn bokk yaar dama leen koy lancé waat képp ku jege président Macky Sall bu ma la gisee ci interview seenu Aïssatou Diop Fall bi mu xasee Macky Sall ba am ko barke alxuraanul karim dinaa la defal trente vidéo yu bokkul nday bay dama lay gëstu wax la lu àddina bépp di dégg parce que mënul noonoo président Macky Sall gisul lu rafetam ñiy ruube réew mi ay Diop Fall bokk na ci Youssou Ndour mi muy liggéeyal sax Aïssatou Diop Fall Youssou Ndour intéressé wu ko nit ku bon la nit ku xolam bi bon amul dara nit ku am danga koy gis ci jëmm ja nit ku am danga koy gis ca waxin ja ay Diop Fall day gàkk Aïssatou Diop Fall soxor na ku caa ku ko dàq ku ko dàqlu euh, euh, Walfadjri mm-hmm. ku caa ca moom Aïssatou Diop Fall moo tax ñu dàq fa moo tax ñu dàq ko fa Aïssatou Diop Fall bon rek la def barki démb la toog Marème fay Sall li muy def amul classe day wanewu toogoon na fi ko wax Marème Faye li muy def yëpp day wanewu dafa iñaan Aïssatou Diop Fall yaa soxor yaa iñaan addina bépp ŋàññi nañ la ñépp jéppi nañ la sa site bi du dem defal nii sax ma dindi sama verre waaw kay di waxak ay Aïssatou Diop mu may xool Aïssatou Diop Fall sa site du dem danaa la tendance ba nga xam ni tendance naa la ëppoo ma baat ci réew mi da nga soxor ku ne ngay xas ku ne ngay saaga. bàyyiwul kenn. Marème Faye day wane wu ak lu baax li Marème fay Sall di def ci réew mi jëkkëram di ko jox mu koy dimbali ci réew mi Aïssatou Diop Fall toog ni Marème Faye day wane ma daggas ma sabañ ko ko barki dem mu génnaan naan téye leen Marème Faye mais Aïssatou Diop Fall la ñu war a téye wala Marème fay la ñu war a téye moom mi amul gétt Marème Faye am na gétt fas lay di la day bégee ma ni ko feccal woman dance ma ci kenn feccal ba mu neex la fecc day dundal xol bégee pour lañu bëgg ndaw si toog rek ni ñog pour la ñu bëgg Marème fay ni nii rek bañ a def dara loolu la ko yéenee ndax mi ngi def lu baax mu ne day wanewu Aïssatou Diop Fall doo dem man Coura maki maa ko wax sa tele ci poste bi maa la ko njëkk a am maa la ëpp abonné dangay bëgg a bourse man duma bourse te damay ami viwu sa site bi du dem maa ngi sa kaw na ko gis barki yonent bi fu ku fa dem ku fa dem ku ku dend ak Macky Sall waxuma APR rek benn bokk yaakaar ku dend ak Macky Sall ku waa Aïssatou Diop Fall invité 30 vidéo yu bokkul ndey ak bàyyi laa defal saa yu ma xëyee. ni la noonu président Macky Sall nga ndax Aïssatou Diop Fall li muy wax Macky Sall du respect mooy président sénégalais yi mu toog ci télé yu sunduur ñëpp toog mu ne Macky président Macky Sall day te Macky Sall lay wax d'accord na ñi mu yóbbu Dubaay ci forom bi yëpp ay wuyu lañu loolu war nga ko wax njiitu réew war nga ko wax constitution ñu bàyyi Aïssatou Diop Fall di dox di doxal mais ay Diop Fall ubbi di ñu di ñu may woo man Coura Macky man pour ma bokk ci première invité yi ma ne leen ñëwuma te ku ma xam ku dend ak président Macky Sall ku dem ci yéen maa ngi ci kawam duma la may dara dama am jot dama lay vidéo 30 laa wax yu bokkul ndey ak baay du dara Aïssatou Diop Fall maa ko wax doo dara nagu buffalo bi tekki woo dara ah looy am lan la Aïssatou Diop Fall am mercredi lay ñëw to lu mu waxul président Macky Sall da koy fàtte ñamu dendal di ko jay mu Macky Sall Aïssatou Diop Fall nag yanne buffalo ngay nagu buffalo yu mag ya Amérique te nekk ta naa lay nuróol gis nga yëkk ya yow yi lay nuróol maa yërëm sa jëkkër président Macky Sall du sa morom ñun ñoo la koy sabañ di la ko subuñ ba nga sonn sa veer yu rëy nga mel ni ngupp jal daleen na yow dafa génn di sosal président Macky Sall naa fekk bi góor jigéen bi. góor jigéen bu mag. Pape Alé dama ko wax mu def dakaar matin mu wax lu ko jëlee fajaa ak Maris boroom ñaari tur yi jàng ci moom lañ doon fréquenté moom Pape Alé diggante Maris ak Fadia. moom Pape Alé moo tax ma ne ko takkal sa fer mu ñàkk jom moom it mu nekk alalu borom barke siit boobu mu yor sonkoo ko ko jox buñ la waree takk tukkee la buñ la abbee teg dang cay war a gaaw loolu waxu mag la ña déggoo la xam nañ ko Pape defe ni président Macky Sall moromam la bëgg siiw bëgg succès naa fekk sulaar bi ñu jël lu mel ni jigéen Adja Mimi ture ak dayo bi mu am ci Sénégal mm. personnalité bi mu am ñëpp toog mu naan ko tonton Mimi ma ni ko jeeg bi yow Pape Alé Niang jeegu <laughs> góor jigéen bu ndaw bi takkal say jaljali ma ñëw man damay prouver góor jigéen Mimi ture jàmbaar la taxaw na taxawu jigéen taxaw taxawu góor am fitu jigéen am fitu góor ma ni leen noonu laa mel te bu ma su ma amee âge Mimi Touré damaa bëgg mel ni Mimi Touré man Coura Macky ci fulla ak fayda ak diiñ personnalité Pape Alé askanam munuñu am ku mel ni Adja Mimi Touré jàng ba jàng jotee kenn musu fee taxaw ni Mimi la mu saaga sénégalais wax bu rëy ba mu wax Pape Alé ci wax bu rëy la dëkk sulaar bi naan na ba kanamam gi bu fe Pape Alé réew mi ñi dafa lay déglul boo waxee ba pare ñu ne accam mais naan dafa naan ba ba bufe fii ginnaaw école Mariama Ba xaw ma Mariama Ba bi Mariama Ñas mhm. Pape Ale bu ma ko bëggoon a foto fa laay dem foto foofu lay toog di mandi nu mu ko neexee su mandee day dem def live di du rek di dajale du logique du wax lu kenn xam te pourtant mën naa wax gis nga nit nee nañu xaj lu mu matt màtt nag bala euh, der ba ca yaram wa Pape Alé na wax xale moom borom ñaari tur yi dégg di ci sol lu tax Pape lu tax Pape Alé toogul mu wax parasol bi mm-hmm. Sonko gàddu ba mu voté ba pare est-ce que mbaa xam nga ni lobi góor jigéen yi wàcce nañ fi parasolu góor jigéen yi fii ci ndakaaru ba sénégalais di ko gàddu te xamuñu ko Sonko pour ko won leen ni man gàddu nañ ci ñaar timm muy taw mu génn di discours sénégalais yëpp taxaw ci taw bi ñu téel ko parasol est-ce que yow Sonko gën a xam lépp xanaa déggoo Pape Omar Dia nee na ba mu ko fekkee Genève kim ko booleel borom ñaari tur yi la Pape Omar Dia moo ko wax kim ko booleel boroom ñaari tur yi la ba mu demee soor ñi mu ki mu njëkk a ñi bokk ci lébu góor jigéen yi la lu bi waa Casamance ko wax ci internet bi laa ko xoolee Sonko lan la bëgg ci ñun lu tax maam Matar gay génnul débat ci couleur bi ñu jiiñoon waali doomu coon sekk ja maam Matar Gueye coon sekk yal na ko yàlla yërëm bu dundoon tey dina defanteek maam Matar Gueye na wax ci couleur bi Sonko dëppoo ak niñ ko wàccee ci poor bii nii mu tas ci réew mi waxagu ci ŋaangagu ci yàq ji ko ji waxagun ci te pourtant war nañ ci wax ndax mi ngi saaw ci réew mi parasol bi su may dawal ku ma dajeel ni la grand na nga def maa ngi fi tonton na nga def ça parasol bii nga nga nga euh, la tiim day góor jigéen yi ñoo koy yor ca Londres ak San Francisco bu ñuy def seen gay gay private wàccee nañ ko ci dëkk bi nag yéen a ngi jënd loo leen xamul parce que dañ ne Sénégal dañuy rey góor jigéen dañuy torturer góor jigéen lu ñu mën dinañ ko jéem a dugal fii ci affaire góor jigéen parce que euh, yàq jikko ji ñoo def boobu promotion sénégalais euh, euh, rembol kala lañ koy wax mooy bu tawee ba pare mooy génn ci asamaan si góor jigéen yi jël ko ni ñoo ko moom dawle ci seeni couleur ay gireek lu ne Sonko moom la muuroo barki démb maa fii sénégalais yëpp di ko gis kenn debaawu ci te pourtant dañ ci war a wax président Macky Sall lañ doon politiquer da bu bu faloo dafay légaliser góor jigéen mais yàlla weer Sonko mu dëppoo ñaar fi ngay xamee ni nitu fitna la ak nitu nguur xoolal niñ ko téelee parasol bi ñëpp di tawte président Macky Sall seetlu ko buy taw du nangu ko ko yoral parasol maa ko seetlu moo koy téel boppam. bëggul ko ko téel président Macky Sall maa ko seetlu man. Mm-hmm. dañ ko ko téel muy wax ñëpp nekk ci daal Demba. Mm-hmm. Daawur Demba ba mu faloo ca Jolof. Mm-hmm. boo takkee jànq balaa nga kaa jël moo koy njëkk a jël daawur demb ñi ñii seetaan story Sénégal xam nañ li may wax daawur demb ba mu faloo kenn du lekk xorom dafa jël xorom sépp confisqué ko këram daawur demb ba mu faloo kenn du gisanteeg sa moroom amul diisoo juróom ñaari at jolof nekk ci crise boo xam ni dañ ko mujj complété génnee ko mu daw ndar Sonko bés bu toogee mooy raw daawur Demba xam nga xorom lay wax nun duñu lekk benn yoon la ñuy lekk la Sonko di def il faut que sénégalais yi déglu li may wax sadik la boo gisee ni muy waxee sax nga xam ne sadik ku war a jël réew ngay saaga police di xas militaire di xas gendarme di xas juge yi magistrat yi avocat yi mais Sonko président yi ministre yi député yi mais Sonko bàyyiwul kenn léegi ci musiciens yi la jëm Youssou Ndour euh, patriote bu mag ba jàmbaar ja africain bu mag ba Mbaye Dieye Faye génneel bang toog wax kay génneel siis toog seede ma africain bu mag ba fierté Sénégal like or no like moom la ñépp xam Youssou Ndour te mënoon naa ñaaw bu ko neexoon dem ci ci diaspora bi di mandi di taxawaalu di daanu mook super étoile mais dafa représenté Sénégal kuy président Sénégal kat yi ñam yëpp moo leen gën a siiw. quatre vingt et la am milliard la ko soni fay milliard quatre vingt et un <laughs> ak a tedd day moroomu Sonko jox Youssou Ndour réew mi moo ma gën a jox ko Sonko parce que Youssou Ndour am na benn charisme bëgg na Sénégal musul génn rey nit bu dul bégal ñu tey dimbali. ñaata nit la Youssou Ndour di liggéeyal Youssou Ndour ku liggéey ak moom ñoom ku liggéey ak moom sax fuy far teg der Sonko ni moom lay bàkk naan ma Salif Keita ki ay Alpha Blondy <laughs> ñun Youssou lañ wax moom lañ xam kenn du Sonko du dara ci réew mi maa fi barki yonent bi du dara sa jaar-jaar mhm. am na lu la metti itam wala am na itam loo xamante ni danga ko dund mu neex la euh, li ma dund mu neex ma ci àddina mooy ba ma njëkkee yóbbu sama yaay màkk dama dox ba ci benn parking làkk ma gaare sama oto bi maa fi dama yuux sama sant yàlla dama yuuxu yuuxu ñetti yoon yuuxu yuuxu yuuxu ba ci yàgg ma jooy wallahi yàlla mi ngi may dégg ma man waaw man lan lay def nii dama bëgg a dof wala lan ma ni non dama kontaan dama kontaan ma sant yàlla bu baax ma ni lii rek laa bëggoon sama àddina yóbbu sama yay màkk kese laa bëggoon te def naa ko jour boobu loolu moo boobu kontaan defe naa nit mos di kontaan di yuuxu rek yuuxu na ñetti yoon yuuxu ba laa la wax ba fu sama baat yem laa def te xaw ma sax lu ma ko def loo <laughs> ma jékki-jékki jooy ba ci yàgg ma ne alhamdulilah astafirullah astafirullah astafirullah jërëjëf sunu borom lii rek laa bëggoon su la neexee sax ray ma wax naa la neexee sax ray ma li ma naqari li ma dund mooy li xew Sénégal actuellement nii mooy li ma gën a naqari jooy naa ko damay tëdd ba ci yàgg ma ne man ndax du ma def Sénégal lii ñuy def nii lan la est que xam nañ lan mooy président <laughs> jóg rek wax dama war a yor réew mi di dénoncer ñu ne dañ la koy jox <laughs> wey <laughs> danga koy prouve ay qualité la Sonko amul qualité président dafa bari wax président du bari wax xoolal ni muy attaqué France di dem ba ci Poutine xam na Poutine <laughs> non Poutine a gën a sadik Sonko da koy dugal ci mbando asib la koy dugal da koy yóbbu ba dëkkam dugal ko ci mbandu asib barki yonent bi français yii ñoo ñoom ba dee barki yonent bi Amérique ak Angleterre ba dee ñoo ko leen ñoo leen jox indépendant July 4 bi ngay dégg Angleterre moo ñoo ko jox ñoo ko jox Amérique Amérique euh, ñoo leen ëpp doole téeméeri junni yoon mais duñ def dara te déggoowuñ ko Angleterre gi Sonko day fo rek Sonko da ngay caaxaan rek Poutine du sa morom du sa morom képp ko am ci àddina Poutine du moromam ba fi Poutine ndànk <laughs> Poutine du bàyyi mu sedd de te gis nga sunu réew mii pétrole bii nga jël sa bët bi luqati ko teg ko ci ak suñuy baax sonko da nga koy teg ndànk ñu sénégalais yi enjoy ko ndànk ñu dund ko ndànk ak suñu doom yi fitna du fi am xeex du fi am maa fi euh, su ma yeggee Amérique damay bu ma léttul damay dem ma def Uber damay dawal taxi parce que xam nga man mënuma ñaan man damay bëgg di am sama xaalis bopp benn foire am fa foiru pétrole ku ma yab rek maa ngay tiitaru di ku ma yab ne la hello nga hello ma ni la <laughs> ñu waxtaan ma ni la my country have a oil nga ma is a good luck for you guys ma ni mu ni ndax wërsëg la ci yéen ma ne ma gëstu ne ko yal na ma yàlla àtteeg yow yow duma la tontu sax olof laa ko wax yow duma la tontu su ma wàccee kooku kooku japonais la mu wàcc ma yeb benn coréen ñuy waxtaan ma ne ko my my my country have oil mu ne ma is a good luck te bokkuñu fu mu dëkk de is a good luck for you guys ma ne duma ko tontu ne pat yab ku dëkk Dallas Texas xam nga foofu la Houston fa la ñuy def kii eh, oil bi ma yabaat keneen black la ñuy waxtaan ma ne ko may country have oil mu ne ma is a good luck ma ne ko ok naa I'm gonna ask you why I ask three people they are they they telling me is a good luck mu ne ma fu am boo leen deful united guerre ngeen di def ndax dafa am ñoo xam ni ay saytaane lan dañuy ñëw pour ngeen xeex pour ñu jël oil bi Ousmane Sonko ci foofu lañu ñu bëgg a jëmee dañuy lànk ba ci suuf Sénégal jàmm rek a gën. wax naag borom ñu ñu nekk ci pétrole yu bari ñu ne ma Sénégal bu ñu unidetul du ñu enjoy seen pétrole bi te dinañu xeex te wóoluwuma ci kenn ku dul président Macky Sall waxuma ko parce que mooy président bi dama ko wax en tant que ku dox addina xam laajte xam ku tey moo ko mën a yor ku vigilant ku jox réew mi cër ku réglé xam li muy def te Macky Sall loolu liggéeyam Sonko nañu baalal ñaata nit ñoo dee ci ci ci Sonko limu mu i e, naqam bi Sénégal gépp dee nañ jeunes yëpp dee nañ ku ci sa ñi seen doom yi dee ba tey maa fii mi ngi ci seen xol yi Sonko nañu bàyyi sunu pétrole bii ak sunu gaz bi tax muy fëyi fëyi nii ñun danu ko soxla te danu ko bëgg enjoy ci jàmm nee naa leen bu ñu amul dara sax tey lekk sunu sebon ak sunu mbaxalu suul ak sunu mbaxalu gerte te duñu xeex am sunu indépendance bi gënul maa fi google nga euh, Liberia nga gis ni mel gis nga Guinée gis nga Mali ñun bëgguñu yooyu te moom yooyu mooy moom yooyu mooy waaye yooyu moo koy dundal moom naankatu deret la yooyu la gëm ci famille Yaya Jammeh la bokk ñu la gëm ñuy torturer nit ñi bés bu Sonko toogee fii yàlla na nu yàlla may nu yàlla bu mu fi toog yàlla bu mu fi toog maa fi dama koy wax sénégalais yàlla bu mu fi toog ndax du gën ci ñun gënul. waa di ñaanal euh, mbokku sénégalais yépp di leen wax ñu bàyyi sunu xel ci sunu bopp di wax ni Sénégal ñun ñoo ko bokk ëppalewu ma fi kenn kenn ëppalewu ma fi président Macky sàll yàlla moo ko jiital. kayitu juddam ak sama kayitu juddu benn la xëy na dañoo juddoowul benn gox yàlla moo ko jiital mu yor réew mi yor mu rafet di ko defar ñun ñu nekk ci bitim réew xam nañ ko ku naa fekkul xam nga ni président Macky sàll mi ngi def mais par parloo moo am ci réew mi mais nag sama sëriñ bu baax bi da doon wax ni as góor du tiit daw as du ñàkk ñànki te as góor du jàpp bàyyi président Macky Sall mi nañ ko jàpp bés bu demee Sénégal dina yëngu de ndax ñii ci langue politique bi sénégalais yéen laay waxal ñii ci langue politique bi joxuñu lu teg lu lu teguñu dara lu leer ci sunu loxo yi wala ci sunu bët yi ji ñaate yaa yaa sàcc ki ya sàcc diwa sàcc nga mujjee ñu jiñ la sàcc sexe loolu moo ko mais di wax sénégalais yi ne leen jàppante rek mooy tax sunu réew mi avancé di ñaanal réew mi jàmm di ko ñaanal président Macky Sall di ko wax mu doxal moom fu mu jaar yoon la. <laughs>